Macky Sall dañu kaa wër nombo loolu la waa Sud Quotidien bind ci seen xët bu njëkk tey jii fukki ci weeru janvier ci atum 2020 bu ñu ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication fukki weer ginnaaw gi mu dooree ñaareelu mandat am ci weeru avril atum 2019 président Macky Sall fi mu toll nii daal yu bëree nga koy xaar bokk na ci bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi nekk ci Bourguiba yëngu-yëngal bi nga xam ne moom la waa ñoo lonk di amal jëmale ko ci xeex ci yokkuteb courant bi si beneen weneen wàll wi it waa G7 di def yëngu-yëngal ngir déggoo bi nga xam ne moom la ñu amaloon ak nguur gi ci fanweeri fan ci weeru avril ci atum 2018 nguur gi sàmmoonte ki kàddoom sur quotidien nee na it am na ay yëngu yu bëri yoo xam ne nemmeeku nañu ko ci biir parti APR ak coalition Macky 2012 ñu waxaat jëmmale ci plateforme revendicative yu jàngalekat yi waa LAS jox kàddu Mamadou Talla ñu dénk ko éducation nationale Mamadou Talla di leeral mbir yi teg ci ne jàngalekat yi moom amuñu benn intérêt ñuy amal ay grève wala année blanche di am ci mim réew ba tey ci biir laas du tàllax di xamle ne gouvernement bi moom taxaw na temm ngir saafara bépp jafe-jafe wante du yomb nag ñu saafara bépp tawat léegi-léegi ñu wax nag jëmale ci wàllu guerre di corruption ak waa tribune di xamle ne Sénégal fi mu nekkoon fa la nekk ba tey jile Sonko dal bu baax a baax ci Macky Sall yàq ko lu mel na xeme Ousmane Sonko jiite parti bi di Pastef les patriotes nee na Sénégal nekkee ci bile situation nag du kenn ku ko waral lu dul président Macky sàll li ko waral nag mooy Macky Sall day ñëw jël ay nit yoo xam ne corps de contrôle yi dañ leen tuddoon ci seen biiri rapport jox leen ay responsabilité ci du ca yem bu ci kanamee mu def leen ay ministre donte seen doxalin tey na xel lool ba rapport yi tudd leen Ousmane Sonko ne li ko ci gën a jaaxal nag Macky Sall moomu la dina tax ba ñooñu nga xam ne dañ leen tudd ci yilee rapport daal kenn du leen tëj kaso yi daal ci tënk bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko lu njiig njaaga te moom mooy njaag mu dénk ko waa Vox Populi ak les échos les échos dellu si bu baax a baax ci ñàkk kaaraange bi ñu nemmeeku ci mim réew rawatina ci wàllu agression yi xam ne dañuy jëfandikoo ay ngànnaay rawatina ci Touba Ndindi ak Kaolack Kaolack nga xam ne benn américain dañu faatoon bakkenam foofule Mohamed Cissé tey jii lañu koy jébbal boroomam ci sëgu Medina bàyyi Niass wante bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi nekk ci critique nag ñu ngi ñuy xamal ne waa département d'état ñu ngi teew si mim réew li leen tax a jóg mooy fexe ba amal ci l'enquête bu leer a leer ba ñu faat yàlla bi di Mohamed Cissé ñu des ba tey ci Kaolack waxtaane wàllu campagne jëmale ci njaayum gerte bi te mu lajji lool bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Mouhamadou Bamba Fall président exécutif COPEOL Sénégal mu wax suñu naataangooy libération yi ne bépp huilier opérateur yi nekk ci mim réew jéggal nañu ñi nga xam ne ñoo leen doon liggéeyal rawatina saisonniers yi waa Soleil ñoom dellu si si conseil présidentiel bi ñu doon amal ci aménagement du territoire mu bind ci xëtam bu njëkk ni Podor maatam ak Kédougou nag danañ nekk ay dëkk yoo xam ne yu mucc ayib lay doon jiitu réew mi nee na dëkk yooyu nga xam ne dañoo sori lool te amuñu benn jumtukaay dana fexe ba ñu ràññee leen l'enquête moom jagleel pàcc bu yaatoo yaatu événement yi amoon fële ca Mauritanie fanweeri at ci ginnaaw ñu ngi xamal ne réfugiés mauritaniens yi nekk ci Sénégal te seen lim toll ci luy jege fukk ak juróom juróomi junni ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekkee Abdoulaye Diop policier la woon tekki di réfugié Mauritanie di xamle ne limu réfugié yooyu sax am na wuute bu ci am ndax ñenn ñi ñu ngi wax juróom benn fukki junni ñi ci des ne ñu ngi ci ñaar fukki junni ak ñeent am na it ñuy ruumandaat ne réfugié Mauritanie yi ci Sénégal toll nañu ci fukk ak ñaari junni ñu jeexale ko tàggat yaram ak waa stade stade dellu si si gaañu bi nga xam ne moom la kii di Sadio Mané am ci ci tànkam bu ñu moyul ñetti match yi Liverpool nar a amal du ca bokk loolu nag jaaxal loolu ki nga xam ne mooy entraîneur am di Klopp nee na lenn daal moo ko métti fi mu toll nii mooy li mu ñàkk ki di Sadio Mané ñu jeexale koog waa sunu lomb bi waxtaanee combat Modou Lo ak Ama rawatina kàddu yi nga xam ne moom la si Jules Balde yëkkati nee na li leer ba wóor mooy bu saison bi lee weesoo bile contrat faw ñu xoolaat ko naam dinañ jàkkaarloog Modou Lo wante bu ñu ci jógee ñu jàll ci leneen balaa ñu cay yegg nag ñun fii la ñuy yemandi ñu yendoog jàmm